D'abord, euh, je m'appelle Boubacar Sow, directeur général de ATA Sénégal, et responsable national de RENAFAT, Réseau national des agriculteurs et femmes transformatrices. jërë ngeen jëf RENAFAT euh, benn réseau la boo xam dafa regrouper des groupement de femmes et des petites et moyennes entreprises au niveau de la région de Dakar euh, année bi passée euh, ñu def ay activités yu bari def ay forum def ay séminaires. dajale leen def ay financement mais tey li ñu dajale mooy yàlla dafa dogal le bureau exécutif bi ñu war ko changer ñu porter à la tête beneen présidence loolu moo waral ngeen ñëw fekk bureau exécutif bi dajaloo pour fexe waxtaan ba tabb ki nga xam ne moo war a jiite Renafat Renafat nag muy kuréel boo xamante ne nii kuréelu dimbale moo ko fi tax a jóg. kuréelu fexe ba développement bi président de la république di wax ñu mun ci bay suñu waar donc loolu moo indi rena RENAFAT donc kenn ku nekk na ngay jàpp ne moom nga mun a appliquer politique de l'État ñun noonu lañ ko jàppee ànd ko aussi ak sumay partenaires allemands yi nga xamante nii dañuy dañu wóolu État Sénégal samp ko pour li nga xamante nii mooy différentes organisations yi nekk ci biir réew loolu moo indi État Sénégal. loolu moo entreprise la. entreprise la bu yëngatu ci wàllu mbay di euh, fexe ba dugg ci baykat yi parce que tey dañu nekk ak benn consortium boo xam dafa nekk Allemagne regroupé ay entreprise consortium yooyu dafa am ñuy defar tracteur am ñoo xamante dañuy saytu ndox yi am ñoo xamante ne ni lépp lu jëm ci wàllu mbay donc ata foofu la taxawee waaye ci biir loolu nag ata li muy def mooy fexe ba soqali bay ànd ko ak ki nga xamante ne ni moom mooy yor réew mi muy politique de l'État. waaw xam nga euh, vision bi paasewul maanaam développé parce que tey ku ne xam na ne dans le cadre de l'agriculture chaque année état bi dina ci def ay milliards et des milliards mais toujours baykat bi dafay nekkaat encore baykat ba mu nekkoon donc ñun li ñu wax mooy État Sénégal dafa ne dañuy appuyer agriculture ci conditions yoo xamante ni dina leen permettre. ñu mun a am seen moyen bopp am seen matériel bopp donc loolu aussi je crois bien que ci vision Atta bokk beneen bi aussi mooy moo tax ñu taxawal aussi Renafat bi pour suqali aussi petite et moyenne entreprise yi nga xamante ne nii jàpp nañu ne boobu ba léegi aussi ñu ngi courir derrière pour essayer samp seeni projet mais nag comme ñun yàlla dimbali nañu ba ñu ànd ak suñuy partenaire allemand ñu ñëw implanté wu au Sénégal ñëw implanté wu dans le département de kon vision bi ñu am mooy fexe ba suqali petite et moyenne entreprise bi nga xamante ne nii nekk na ci réew mi organisation yi nga xamante ni mooy les groupement de femmes ou bien les réseaux aussi ñëpp aussi jox nañ loxo at euh, Renafat ba ñëwoon bokk ci kon loolu moo waral aussi vision bi nekkoon vision boo xamante ne nii jàpp nañ ne mun nañu ànd ak ñoom cheminer ba fexe ba seex ndool waaw non suñu mission passé bu parce que tey aujourd'hui dama jàpp ne euh, Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni aujourd'hui tey. dafa nekk en voie de développement comme nekk na en voie de développement ñun li ñu mën a def mooy fexe ba ànd ak ñi nga xamante ni c'est des pays développés fexe ba jël ci ñoom xam boobu indi ko suñu réew kon donc li ñu wax lépp mooy li nga xamante ni moom la war a teg pour développer suñu réew parce que ñoom aussi noonu la def ba développer seen réew waaye nag ñun li ñu koy defee aussi mooy dañuy jaar ci structure yi nga xamante ne nii mooy structure yi fi nekk lu mel ni réseau yi lu mel ni groupement de famille yu mel ni petite et moyenne entreprise donc ci loolu aussi ñu sukkandiku ànd ak ñoom pour fexe ba génne leen ci suuf développement bi nga xam ne nekk nañ donc loolu nag État Sénégal moo taxawal réseau bi État Sénégal moo taxawal réseau bi ci de ses propres moyens donc ñu wuyu si ko nag au niveau de la région de Dakar ba moo tax aujourd'hui tey boo xoolee li fi jógee li fi nekk yépp ci ay organisation yoo xam ne dañu bëgg a ànd ak État Sénégal donc toll na ci presque plus de cinq cent 508 euh, organisation te aujourd'hui kenn ku nekk yaa ngi gis satisfaction xam nga activité yi moom État Sénégal moom li ma lay njëkk a wax rek mooy orientation bi mu njëkk a joxe mooy dafa formation renforcement de capacité parce que nit ki aussi loo koy jox il faut nga former ko nit ki aussi da nga ko fekk ci li mu xam nga aussi nga renforcer ko sa capacité donc loolu suñu ñaari mission yi nga xamante ni dafa fondamental n'est-ce pas donc je crois bien que ne loolu euh, mooy li nga xamante ni tey mooy point fort beneen bi nag mooy jot nañ fi def forum national boo xam Réveil lañ ko defee boo xam te ni ni c'est euh, assisté président euh, c'est assisté avec le maire de Francfort avec aussi des différents chefs d'entreprise yoo xamante ni teew nañ fi ñu ngi ko def à l'année passée fii aussi ci locaux yi nga ne État Sénégal moo ko moom RENAFAT daje na fi def na fi séminaire boo xamante ni nii donc mën naa ne tous les yi nga xam ne ñoo nekk ci RENAFAT yépp fekk nañ séminaire bi ba ñu am nañ mooy brochure bi nga xam ne tënk nañ ko mooy orientation yi kon donc ñun jàpp nañu ne fi ñu jëm ah xam nañ ko ndax pare nañ ko mais nag li ci am solo mooy fexe ba teg kuréel boo xamante ni kuréel bu dëgër la te tey moom la ñii di def te incha allahu rabi bu ñu paree ci seen bureau bu bees bi je crois bien que État Sénégal daf leen di accompagner. waaw en fait je crois bien que li am solo aussi booy wax renforcement de capacité wax aussi lu mel noonu je crois bien que leadership bi am na solo parce que li am solo mooy nit ki exemple ñu xàmme la ci. et je crois bien que ko mais li ñu ci war mooy dinañ bay suñu waar. ba li nga xamante ni par exemple li ñuy wane ñun nit ñi xam nañu lii kat développement Sénégal la te dañ koy def nag sans complexe dañ koy def nag sans aucune mesure parce que tey boo xoolee euh, financement yi ñu fi njëkk a def jox ko ay jigéen dañ leen wax ne zéro pourcentage de intérêt donc ni ñu leen ko joxe woon noonu lañ ko ñëwee fay malheureusement nag jigéen ñi am na ci ñoo xamante ni du ñu fay ci noo xamante ne ni peut-être ñoom ñoo ko xam mais je crois bien que loolu État Sénégal du ko du ko endossé mais jàpp na ne daal Euh, première mission bi nga xamante ni moo nekk revolving nga xam ne dañu leen doon jox xaalis je crois bien kooku échec la parce que tey ñu bari leb te fay ñu je crois bi tànn que ne loolu daal mission la boo xamante ni tey. gën naa am moom critère de sélection moom dafa yomb trop. parce que da ngay ñëw boo ñëwee bureau ATA déjà d' wax rek mooy dama ne dañu ne fii du jël par exemple des. entrants individuels parce que tamit da ngay ñoo la gën a xam da ngay gis ñoo xamante ni dañuy dem créer benn groupement de femmes donc daf ko seen sac donc du groupement de sac c'est pas c'est pas c'est pas fonctionnel loolu État Sénégal daf koy saytu mais li ñuy am solo ñun li ñuy war liggéeyal yépp mooy groupement yu fonctionnel parce que bañ nañ ko ba dañu am benn équipe boo xamante ne ni day tourner au niveau de département di xool yi ban jour la ñuy toog mu ñëw fekk leen fa fekk leen fa ça ne veut pas dire da leen li ñuy def lan la parce que dañu am chef de boo xamante ne nii bu ñëwee donc moom dina def constat da ngeen di def bu baaxee rek donc on va continuer mais su baaxul automatiquement def ci PBM bi wane ne baaxul kon nañ la war a defal leneen mais pour war la rek ne la donc wu ñu ci ay individualité mais tey li nga xam ñoo ànd ak État Sénégal ñëpp c'est des groupements yu fonctionnels te kenn ku ci nekk am nga jour nous avons pas de convention que man aussi wax naa ko léegi nee naa leen nous sommes une ñu tam dañu nekk secteur privé nekk euh, euh, entreprise privée mais li ñu def mooy yàlla daf ñu may ñu mën a dem ba lëkkaloo ak ay om d'affaires allemand donc homme d'affaires allemand yooyu État Sénégal dafay jaay ay matériel matériel yooyu aussi dañ koy jaay dañ ciy am bénéfice bénéfice boobu aussi dañ koy dellowaat ci askan bi loolu moo indi tey ñu am doole pour taxaw mën a jàppale Renafat mais bu fekkonte ni tey la ñuy jaay wala amuñu benn euh, bénéfice donc xaj na du ñu mën a jël xaalisu entreprise bi du ko jàppale groupement de femmes yi mais nag alhamdulilah rabbil alamin avec mes partenaires allemands ñuy jàppale te loolu nga laaj aussi lu ñuy xaar la ci état Sénégal parce que bépp organisation da nga jóg pour def développe développer réew mi donc dañ la war a jàppale donc loolu aussi yaakaar naa ne ñun exclure duñ ko ndax aujourd'hui je crois bien que ne État Sénégal romb na foo xamante ne nii ci Sénégal waxuma sax mais je crois bien que ñëpp xam nañ ko ci Sénégal ndax collaboré nañ avec le ministre de l' bi nga xam ne moo fi nekkoon et je crois bien que avec aussi organisation le ministre de l' organisation paysanne on yoo xamante ni dañ doon fexe pour nu ñu mën a soqalee suñu mbay ci suñu réew donc loolu yëpp pour wane ne État Sénégal du gan ci mission yi nga xam moom la teg. donc tey daal li ma bëgg a wax mooy yàlla dogal na RENAFAT daje nañu tey euh, samp nañ seen bureau exécutif bu bees yaakaar naa ne président bi dina wax ak yéen n'est-ce pas ak ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko toll. la nga xamante ne nii nag moom mooy euh, perspective yi je crois bien que ñoom am nañ ay am nañ cahier de charge boo xam ne dina soumettre au niveau du État Sénégal te lu mu gën a gaaw la su ko defee. ñu mën a fexe ba ànd ak ñoom ci mission bi nga xamante ni bëgg nañ ko mais mission yi rek wax naa leen ko mooy renforcement de capacité ah financement yi dañ ciy dem dem même temps aussi wax dëgg yàlla jàppale nit ñi ba ñu génn ci yenn situation yi tamit dañ koy def mais daal loolu aussi je crois bien que ne li ñu mën a wax mooy fat mooy mooy dox mission bi donc moom la ko État Sénégal di dénk te incha allahu rabbi je crois bien que ne loolu très bientôt ñoom ñu paree ci li ñuy def